almaami njool waalo ñaari xale yaa ngi si moom almaami da at dem na diwo ji ñëwaat ay ndaanaan la ñoom ñaar ñëpp mooy alma ak ki nga xamante ni moo di njool waalo ñaari xale yi ñoo tolloo tolloo gabari si li làmb bëgg ak li làmb bañ njool waalo Grand Yoff lay waree jàkkaarloog ndaanal mi nga xam moo ne almaami arbi suufle na arbi ba suufle na njool waalo ak ki nga xam ne moo njool waalo dagg na tibu suuf raxasu almaami fomp na ngemb li laa ilaaha ñaari xale ñaari xale yaa ngi kabar na Ndiol Waalo kabar na wut si ko moom Ndiol Waalo ak ki nga xamante ni mooy Alma ndax ñaari mbëri dañuy xeex Alma ak ki nga xam moo Waalo ñoom ñaar ñaari mbër ñaari mbëri mbapat lañ Alma Ndiol Waalo laa ilaaha illallah njool waalo ngi direk ko topp dugal tànk bi suuf jàpp na yooru jàpp na ko loolu la bëggoon njool waalo almaami ñaari mbëri jàppante nañ laa ilaaha illallah ñaar xale yaa ngi sa zongale mu bañ tegaat caxabal bi la ko bëgg a roofoo la njool waalo ak almaami jàppante nañ ku geeño te laa ilaaha illallah zongale zongale mu bañ laa ilaaha illallah ñaari xale yaa ngay bëre ñaari njool la njool waalo ak ki nga xam moo di Allemand kenn ku ne dafa sa morom ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dafa bëgg a songale sa morom Njool Waalo ak ki nga xam moo di Allemand kenn ku ne sa morom xalil ñoom ñaar Njool Waalo daa bëgg a songale Allemand bëgg waaye benn songale mën a am benn songale moo mën a am waaw waaw benn songale mën a am waaw asalaatoo mu jeex jàpp kenn ku ne jàpp na sa ngemb tey dégloo moom Njool Waalo jàpp na Allemand jàpp na kenn ku ne ngi xalaat. yaa ngi déglu sa borom Songale. waaye ki nga xamante ne mooy Songale caxabal door na ko tàng. lan la la la la la